jàngoon nañ yan barab la ñuy fataha hamza inna mooy su fekkee mën ko taawil masdar jàngoon nañ la aju ci wàllu taawil masdar inna ak ak xabaram ak la aju ci wàllu taawil masdar ci an ak fi'lu bi nasab tey na ñu jàng yan barab lañuy ñuy kasara hamza ak inna neel rek mooy su fekkee mënuñ koo tawil masdar wala neel inna su commencé jumla dang koy kasra gannaaw jumlaay xawlu wax ak noo mën a wax ja xaalaak yaquulu qul ak su xawlu ñëwee inna topp ca gannaaw jumlaay xawlu jumlaay wax bu ñëwee inna topp ca inna bu dee mooy lañ wax daal bu dee mooy lañ wax jumla bu inna dugg moy lañ wax foofu inna rek la mën a doon gannaaw ismu mawsuulit bu inna ñëwee nekk si laay mawsuul ga kooku inna rek la mën doon ñetti barab yi inna ngay wax waaye doo wax anna te soo waxee inna doo ko mën a taawil masdar al amsila li mooy misaal yi inna niila naka dex ba xayaatu misra mooy dund ak misra dexu niil ci lay misra di dundee inna moo commencé jumla ba moo tax doo mën a wax anna anna du commencé jumla inna al kaziba naka nar jub nun tappet la ragal rek mooy nar mooy mooy wax lu dul dëgg dégg nga waa inna li tax nga wax inna parce que moo commencé jumla ba inna la adda naka mandu asaasul maliki mooy fondement wu buur asaasul mulki kon mooy fondement wu nguur mandu mooy tax nguur sax inna la la commencé ndax dafa nekk ci njël benn jumla bi kon inna bu commencé jumla kenn du ko wax anna inna rek nga mën a wax te mënoo ko taawil masdar fii doo booy taawil masdar looy wax bu ñëwee gannaaw jumlaay xawlu maanaam bu dee jumla bi inna gi dugg mooy lañ wax loolu kenn du wax anna inna rek la wax qaala wana na almuttahimu aji tuumaal ji ne almuttahimu xam naa almuttahamu la waroon doon qaala wana na almuttahamu kañ tuumaal ne inni naka man bari un aji set laa du jumla bi inna dug moy lañ wax kon muno wa anna muno wa al muttahamu anni bari'un bu waa yàq nga inni la war wax parce que moy lañ wax qul waxal ne innal xaqa naka dëgg waadixun aji leer la fofu inna rek nga mën wax muno wa anna parce que al xaq waadixun moy lañ wax jumla ba inna dug moy lañ wax waxal looy wax innal xaq waadixun foofu inna nga mën a wax laa taqul bul wax ne innal amala naka liggéey bi shaaq shaqqun aji jafe la foofu lañ wax mooy inna al amala shaqqun su boobaa kon doo mën a wax laa taqul anna al amala shaqqun inna nga mën a wax parce que dafa ñëw gannaaw qawlu maanaam mooy lañ wax kon jumla bi bu commencé inna foofu kenn du fa def anna inna rek lañ mën a wax jumla bi bu dee mooy lañ wax kenn du mën a wax anna inna rek lañ mën a wax naka noonu jumla bi bu dee mooy si mawsul kenn du mën a wax an na inna rek lañ mën a wax surtout ziyaare na alladi ki nga xam ne inni naka man umajjiduhu danaa ko teral xam nga ladi ismu mawsul inni umajjiduhu mooy silla ba hmm? dégg nga yaa ngi mooy ismu inna gi umajjiduhu mooy xabar ka jumla googu mooy silla ga waa gii ne dellu ci mawsul كم ك إن جوج مويس لاغ موصول با منو أن إن رنغ منو فوف أراب إن رنغ ليوخ تدوين كمان تاويل مصر أشفقت يرمنا على التي جتنا قمنا إنها نكموم جديرة أجيه يولا بالشفقة تي يرماندي كنا قمنا سخلنا يرماندي يرمناكو فوف أراب دو وخ إنها أن أنها دو عرب وخ عرب دو وخ إنها ليوخ ده إن جوج مويس لاغ موصول حضرت يونو الذين يقمن إن حضورهم نكسينك تيو يسرني درم بغلو إن غوغو موكو ما سيسل موصول غا كون إن رلين مانا وخ مانام لأي خمرا نجي بند دو خم أن نجا ورا بند ولا إن نجا ورا بند جابل نسولي دن كو كما سي بند إن أن باخد بري إن نجي لم دوغو موي لاني وخ بند إن باخد فوفو su fekkee inna gi mooy sillaak mawsul ga foofu inna ngay bind ñetti barab yi ci arab ci ngay bind ci ngay bind inna yeneen barab yi moom mooy anna albaxtu li mooy gëstu bi taamal setantalal kulla misaalin bépp misaal min am tari saabiqa ci misaal yi jiitu tajuru da nga fekk anna annahu ne moom tastamiru dana làmboo ala inna ci inna wa ismuha ak ismam wa xabaraha ak xabaram ولكنك واي ولا تستطيع دعوة مك أنت دانغتك مصدرا مصدر في مكانها سيسان برب يوي منو دوغل مصدر سيسان برب لذلك لولو ورل لم تكن نكد حمزة إن حمزة إن في مفتوحة درين فتا ndax du luñ war a taawin mastar ba li fi nekk kaara nekk na mag suwatandi luñ kasara wajaa taamal te boo seetantalee alam sereeta salaasata نتي مثالي الأولى ينجكي رأيت ذيكس إن المكسورة تل المكسورة الحمزة بن كسر حمزة بها سي جملة بوب ولا مثال بنجك بوب ولا سي نتي مثال يبصح واقعة ميجي تبي في أول الكلام سنجل بين وقت إن سنيت المثال ينجكي دفا نيك سي كوماس وإذا نظرت بو إلى الأمثلة الثلاثة الثانية ci ñetti misaal yu ñaareel yi raayta ngis ko waaqaata muy tabbi baada jumalin gannaaw jumla yoo xam ne afaalu seeni fialu maa xuusatun dañ koo jëlee minal qawli ci wax allazi gi nga xam ne foofu moom mastarun moo di mastar boo xoolee ñetti misaal yu ñaareel yi da gis ne fialu ya ca nekk dégg nga eh, fialu yooyu ci baatu xawl lañ ko xotee qawlu mooy masdar ba qaala qawlu mooy masdaram qul qawlu mooy masdaram taqulu qawlu mooy masdaram kon bépp baat boo xam ne ni daal dañ koo xottee ci qawlu qawlu mooy masdar ba su fekkee dafa commencé jumla inna ñëw te inna mooy lañ wax inna googu inna rek lañ ko mën a wax amal am sëradu salaatul axira wala waaye ñetti misaal yu mujj yi fa fiyaa ne ci ñoom waqaan la tàbbi inna inna fi awwali jumlati silla si ñeel mbeelu jumlaay silla ñetti misaal yu mujj yi inna gi dafa ñëw ci commencement wu silla wa bi zalika ci loolu tastatiw nga attane an tastanbita nga balalu an na balalu may nga génne atte an na hamzata inna ne hamza inna takun day nekk maksuuratan diwuñ kasara fi axwaali saabiqa ci xaal yi jiitu loolu ma rewoon na ñetti xaal yi inna dañuy dañ koy kasara duñuy wax anna alqawaay li mooy tënk yi tuksaru dañ kasara hamzatu inna hamza inna إذا لم يمكن بجابلوت أن تؤول أن يتاويل كهيموم ومعمولها أن يمجف مو اسمهم أخبر بمصدر انت مصدر همزة إن بوكو من تاويل مصدر قمال إن جاي جانج بوكو من تاويل مصدر أنا ويجب دنا ور ذلك لول في نحي ما ياتي تشري ديك نياتي موم دا فاي وار نغا ديف كو إنّا isa waqaat bu tàbbee moo hamza ga fi awalil kalaami si njëlbeen wax bu dee moo commencé wax ja inna rek ngay wax isa waqaat bu tàbbee baadal qawli gannaaw qawlu bu mastuqa ak la xottee nañ ko minu ci qawlu bu dee baat boo xam ne qawlu moo di masdara moo ko jiitu inna ñëw inna mooy lañ wax daal su boobaa inna rek nga ko mën a wax isa waqaat bu tàbbee fi awali jumlati silla si njëlbeeg jumlaay silla bu dee silla la sillaay mawsul la foofu inna rek nga mën a wax tamrin bayin leer la fi ibarati atiya ci firi yi dikk inna inna al maksurat al hamza yin kasara hamza wa anna ak anna al maftuhat al hamza yin fata hamza maa zikri asbaabi nga tudd li ko waral maanaam lii muy wax am na yoo am inna am yoo am anna danga koy leeral nga waral nag nga leeral lan moo tax mu nekk inna ak lan moo tax mu nekk anna إن القاهرة لك قاهرة مريضة دك واسعة الأرجاء بيات أيوال تشتهر دنسي من قاهرة بأنها كنموم كثيرة المعابد لبري أي بربي جامك يا الله والمدارس أي إكول قاهرة لبري بربي جامك يا الله أي إكول وقد قال وحنا المؤرخون من تاريخي من وقت تاريخ إنها نخائرة kaana nekk na mal ji andi wéedu waaye li kasir ñeel ñu bëri min ulama ci borom xam-xam faida zurtaha boo ko ziyaare adhashaka dana la gërëm loo lu lay gërëm loo anna shawaariha ne ay mbeddam musdahimatun aji xat la dafa bëri nit wa xakamta da nga atte bi anna nidaamaha na nim organisé woo jamilun lu rafet la بعد مساجدها لن شاي جاكام القديمة ياي جيتو وآثارها ياي جيختم جيخن مولفة مغني باي التي بها خمنا إنها نكمم التي إنها من أجمل ما أبدعته من بوك شي لو غنا رفتي نيا خمنا فنت نكو يدو إنساني لخب دوم آدم بوكي سون جيخي لين فباي نغيس نيا يكت لدوم آدم مصدفر deug deug yi ci yi ci gëna a rafet la bok bo dama ba gis loolu lépp la mala at dana fees xal bu sa xol sururan ci mbekt wala alim te da nga xam anna baaka nay say bàyyi al arabiy arab kanu ne ko ñu jala jiddin di gori gor golu itqaanin ak sab say bàyyi dal ñu daan farlu lañ ñu xereñ ñu xereñ ñoon bo dama misal nga xam lool تمرين بنيارة بدعتك إن قبل كل مبتدا ينجك بيب مبتدا وخبر أخبر في الجملة آتية جملة ذك وبين قال نوع حركة حمزتها خيتو ماسك حمزة حمزة قلو ماس إن لا ولا أنا ما ذيك السبب إن تدو سبب دين إيه من نغتك إن ننجك مبتدا خبر ci jumla yi am na yi nag yu dul mubtada xabar yooyu moom kon soxlul ko dafa jaxase pour nga xam pour ba xam ndax xàmmee nga mubtada xabar yim ne waaye am na ci jumla yi dul mubtada xabar لكن جك مترا خبر نعند دوغل إننا ولا أننا فك أننا فردو آه، سكر في إنغوا خلوت إنغوا إننا ولا أننا كتبت بيننا في الامتحان إيش إجزماي كوكو فعلا فعلا جاي مجرورة ما لنا خمن أنا من وفوف دي مترا فا مسرور أجيب لا بيجو وخل ما دوغل فأنا ولا إننا lan ga foo dugal maa annii wala maa innii bul yaakaar nag maa gi tax na commencé wut parce que mubtada goo gisa moo commencé wax bul yaakaar ne maa ngi tax na nekkul ci commencement wu kalaam gi añ kay karabtu fil imtixaani maa loolu fin lo fin la mafoonu biir ana masulum bi wax ji commencé la léegi da ko def annii wala inni alxayaaw kerte min al imaan muy bokk ci gëm إن الحياء wala أن الحياء laa taqulu bu leen wax durusuna sin darsuy sambalo jëfal waaw foofu mubtada karu nekku fa waxal laa taqulu bu leen wax inna durusana wala anna durusana rakibtu war naa alqitaara tenay allazi bi nga xam ne huwa moom sariun aji gaaw la waxal rakibtu alqitaara allazi innahu wala annahu qaala wana al ustaazu ustaaz assaadatu texe في القناعة منك دويلو وقد قال الأستاذ أن السعادة ولا إن السعادة في القناعة التفكير القلات قبل العمل نجك لغي بشير نجاحه موي بيغلك أتمم maanaam bu fekkee balaa ngay def dara da nga ci xalaat ba pare loolu mooy wane ne li ngay dugg mën nga ci am ndam Bachir na jaay Bachir mooy bégle ne yi ndam mën na ci am waxal inna tafkiira wala anna tafkiir yaay xool ban nga ci war a dugal ak lu tax nga dugal ko fa daa tegal jumlatan jumla mabduatan bu commencé bi inna ci inna fi kulli makaanin xaalin ci bépp barab bu wet bu bayin nga leeral xarakat hamzatiha maskab hamza ba ma zikri sabab ànd ak tudd sabab dugalal dégg nga manam tefal jumla bo xamni inna lay commencé ci barab yi nga xamni daf ci def point da fa duggal jumla bo xamni ni inna lay commencé nga leral wala anna nga leral nga fo ramas yaqul muy wa tabib docteur bi ay yegaliko waye nak jumla bang ko yegale na nek inna wala anna inna wala anna ya yaqul ba ci war a dem akaltu lekk al alfaakata firwi allati bi nga xamne duggal motliko waxal inna wala anna hazina jaqna allaati jigéen ñi nga xam ne mottali ko jumla bi nga koy mottalee inna lay commencé wala anna zahara feeñ na alhilaalu weer wi allazi bi nga xam ne mottali ko jumla ba nga koy mottalee inna lay doon wala anna qaala wax na assaa'ixu aji tukki ji mooy assaa'ixu mooy kuy wër di xoolal dëkk yi rek pour bëgg xam la fa xew gi demee noonu di visite daal qul waxal yooyu yëpp yaa koy mottali. kawin formel sitta jumalin juróom benn jumla تكون ذلك همزة إن همزة إن في كل من هاتي بن بنك مكسورة دلو انكسر لأننا نخمون في سنتين سنيار من يوم أول الكلام يونيك سنجل بين وحجة وفي سنتين ينياري بعد القول تشيقنا وخلا ولا لنقطة وحدال وفي سنتين ينياري مجي في أول جملة السلة نيك سنجل بين جملة السلة فرميل جرم بين جملة يوخمنك hamza in inna gidan dañ kasar kasara ñaari na kuma wax ci idan nyari na yau gannaaw lu jugee ci wàllu xawlu yeneen nyari yu mujj na inna gi nekk jumla silla tamrin fi insha yi te moo mujj ci darsu bi Mune uzkur tudal saban fawaida jurum ñaari njariñ lil maa yi ñeel ndox fi jumalin tammatin daf ko jumla yu mat mubtada daa ji commencé kulla jumlatin bépp jumla bi inna ci inna al maksurati al hamza al maksurati al hamzati yoo xam ne hamza ga dañ koy kasra waxal juróom-ñaari njariñ yu aju ci wàllu ndox waxal ci ndox juróom-ñaari njariñ mais na nekk jumla bu am bu am njariñ daal te jumla bu nekk na commencé inna su ma kawin nga formé min haadil anaasiri ci le ponk asaba yu juróom-ñaar mawdu an tem mu tasil ajza yoo xam ni day jokkaloo ay xaaj-xaaj min xëyri an taltazima ci lu ngay taqoog ay xaydin benn tënk fi takwinil jumali ci toggale jumla yi maanaam yaa xool juróom-ñaari jumla yu la neex nga indi waaye na wax ci wàllu ndox loolu rek lañ la tënk lool loolu tënkuñ la ci juróom-ñaari jumla yëpp benn bu nekk na commencé inna guñ kasara su paree nga boole juróom-ñaari jumla yooyu def ko muy texte boo xam ne ku ko lii dana am njëriñ day nekk texte bu am boo xam ne mel ni ku doon bind benn texte da nga koy xaaj jumla ngay indi indiwaal beneen jumla indiwaal beneen jumla ba muy juróom-ñaar soo paree nga boole juróom-ñaari jumla yooyu nag mu nekk benn texte boo xam day wax ci benn thème hmm? maanaam texte boo xam dañuy am rapport baat yi day am jumla yi day am rapport su ko defee kon daf laa bëgg a waxal laal ne la. Hmm, saa yoo commencé jumla inna ngay commencé su fekkee jumlaay inna bi mooy lañ wax maanaam xawloo ko jiitu wala lañ xottee ci xawlu inna ngay commencé bu dafa nekk si laay moosuul yooyu inna ngay commencé ñett yi nag dafa war waajib lañ commencé inna boo commencé ànd rek yàq nga te duñ ko taawil mastar yeneen yi moom lañuy commencé ànd ànd dañ koy taawil mastar إن أريد الإسلام واستطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النيل حياة مصر kooku irab bi daanaka moo lañ jàngoon ca xaaj bu njëkk ba benn la inna am nañu ko irabe xarfu mushabbahun bil fi'li araf wu niroog fi'lu la ndax fi'lu mooy mooy nasab di rafaan تبو عارف لو بقوم لفين صدر فا مرجع غير هذا كله ولملك حرف التوكيد حرف فدري يرفع ينسب الاسم ويرفع الخبر نيلم اسم حياة ما خبر مثل مدافع إليه لا مجرور بالفتاتين دخ لا ينصرف له إن الكذب جبن ممنون له إن عدل عدل اسم بأساس ما خبر بالملك مدافع إليه قال فعل المتهم فاعل إن حرف توكيد ولا حرف مشبه بالفعل لا غير فاعل نسب يا دمير متصل مبني على السكون في محل النصب اسم إن بريء قبر إن قل فعل أمر فاعل بأنت لا إن الحق واده إن لا اسمهم أكبرم لا تقل ما هي كوكو يجزم الفعل تقول جيم فعل مدارع مجزوم فاعل بأنت لا إن العمل شاق إن لا بنقول إعراب حرف مشبه بالفعل حرف بندر لك فعل ولا إعراب يكون حرف توكيد ينتبه اسمه يفعل الخبر العمل مو اسمه دوتي وعلى وي منصوب شاق مو خبر دوتي وعلى وي مرفوم زرت فعل ماضي لن يبرع الكسكون دقتاو متحرك بجيوك تاو دمير متسلم ولا دم في معذرة فاعل كن فعل فاعل لا زرت الذي اسم موصول ممنوع على سكون في معنى نفس مفعول به اني امجده مك اني بريء بن لا لوي لوي رك امجد فعل مدار فاعل بان لا هاجي دمير متصل ممنوع على دم في محل نفس مفعول به والجمله الفعليه في محل الرفع قبر ان اشفقت فعل فاعل لم زرت على التي جار مجرور على ما التي اسم موصول مبني على السكون في محل جار على على التي إنها جديرة هاجي موي متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن جديرة ما خبر بشفقة جار مجرور لك من بعرف في شفقة اسم مجرور بالباء والجار مجرور متعلقة بجديرة تفهم رابور جديرة جديرة أجي ورلمي بالشفقة حضر فعل ماضي الذين اسم موصول في محل رفع فاعل مبني على الفتح في محل رفع فاعل إن حضورهم حضور واسم إن هم قدمير متصل من على السكون في محل جر مضاف إليه بصرف فعل مدافع فاعل به هو لا نون بي نون بي قائلا ياغي موم غنا بوك اعراب الضمير نينكو نينكو ري اعراب لا غاني مو في محل نصب مفعول بي الجملة الفعلية في معنى رفع خبر إنه سو كده فيه دا نيك دان اعراب بس اموت دا نيك درس نون جانغ رك مو ريبتو اشفقت على التي انها جديرة تسال هي جديرة لون مي خمغه هي بو فيك دا فجوكو حالي دون comme ni nga xam ne huwa bu jëf foofu lay doon moo tax xaaji yi mooy ismu bi parce que hiya moo doon ci sànni foofu in uridul islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh